accident bi am Kaffrine noo ko noo ko dundee bi nga ko déggee yaa ngi koy wax léegi. waa di masawu rek di di masawu sénégalais yëpp. Hmm. wax dëgg fi yàlla muy tiis boo xamee ni que metti na trop trop trop trop ñi nga xamee ni que ñoom ñoo ci ñàkk seen ak njaboot. Hmm. ñu leen di ñaanal yàlla may leen xolum muñ. Hmm. te ñi faatu suñ borom jégal leen ñi nga xam ne dañu blessé tamit suñ borom fëgg seen bopp. wax dëgg yàlla muy lu metti loo xamee ni que metti na sénégalais ko quoi. suñu ci doon tiire ay leçons lan lay doon ñii nee nañu tali yu yàqu yi la ñoom lañ ko jiiñ euh, ñii ni état moo deful li war a def ñii ni chauffeur yi ñoo deful lu ñu war a def ku nekk yaa ngi wut koo ko jiiñ yow en tant que jeune rappeur soo ci doon bind texte tey ko koy koy teg toor bi. Euh, toor bi ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ci wàll. Hmm. état bi am na ci wàll bu fekkee ni cent la mën naa ni man cinquante cinq yëpp moom moo ko moom chauffeur si am nañ ci wàll ñun ñi nga xamee ni ñooy dugg ci oto yi tamit am nañ ci wàll su ma nee chauffeur si chauffeur si ak emprunté yi laa ko boole. Mm-hmm. état bi moom wàll bi mu ci moo gën a yaatu. mooy wàll ba waaw parce que euh, son yi mm-hmm. euh, du gis nga tëli yi nga xamee ni que moo nekk ci Sénégal. Mm-hmm. son bu dafa xat torop torop torop torop torop torop. Mhm. dafa xat trop trop. xam ne ñaari vélo yu mag sax xajuñu xajuñu fii. te état bi. Euh, du gis nga ndakaaru gi mooy capital d'accord. mais ndakaaru rek du Sénégal. du gis nga tëli yi ñu def ci dakaar BLT beeg yëpp yu ñuy def ci Dakar. rafet na nice na trop trop trop. mais ñii ñëw dakaar ñëpp ci àll bi la ñuy jugee. te ba la ñuy yëg ci Dakar. Mhm. ci ay tëli yu nekk ci àll bi la la ñuy jaar mais tëli yooyu dafa xat ba waxuma la. Euh, accident chaque jour ñaanuñu ko yàlla mais du gis nga. du bett kenn bu fi accident amee. ba pare que mu mel ni que état bi tamit soin bu mu bàyyi di profito ci lan parce que nit ñi mënuñu nekk ci tiis. Mhm. accident am lu mat quarante personnes faatu ci. Mhm. que même sax yow discours yi ngay yëkkati ci accident bi sax. wala benn kuy campagne. discours waaw nan waxante dëgg nag. discours bi sax discours campagne la. parce que bu ñu defaree ab hôpital. rawale fa rawale fa maladie mais baax na ñu ni kat président lii mu def ci Kaffrine su dul woon ak moom gars yi. yow lañ leen di yóbbu wala Kaolack. waaw mais du sooy bu. président bu demee ba Kaffrine. def fa hôpital. Hmm. waroon na mën a xalaat ni hôpital bi ñu fi ñëw ñëpp ci yoon bii la ñuy jaar bu ñuy yegg si. waaw Ah, bala ngay defar hôpital bala ngay defar hôpital defalal yoon yi yi bu ba pare même boo defaree hôpital defal nga hôpital hmm. léegi yow nit ñi bàyyi leen ñu wax seen xalaat mais que man dama seetaan euh, RTS dama ruus quoi ruus ah, waaw parce que xam lan moo tax ma ruus mooy que yow nit ñi ñu ngi nekk ci jafe-jafe ñu ngi nekk ci fitna toog di xalaat nga xamee ni suur boobu noonu li amul lépp gars yi dañ ko dañ ko dañ ko kii yow amoo lenn looy wax nit ñi mooy ñu sant président parce que lii bu ko fi deful woon di indi discours yoo xamee ni yow soxla soxlawuñ ko si moment boobu noonu. si si ñu accident kenn ñaanu woon yàlla ñu accident bu fekkee ni tey président. que ay accident am. ñu jël ay nit. yóbbu leen ci hôpital mooy tax liggéeyam di feeñ yàlla bu liggéeyam feeñ kon. bu fekkee ni loolu rek bu fekkee pour ñu xam ne président liggéey na il faut que accident am. lu mat ay quarante personnes dee wala ay nit blessé. Mmh. ñuy doog a xam ne président liggéey na. Mmh. parce que yóbbu nañ si hôpital ñun kon yàlla bu bu bu en tout cas hôpital bee ci Touba de bu fekkee loolu mooy dox nit ñi xam ne am na solo mmh. yàlla yàlla ba solom feeñ d'accord parce que soxlawul loolu quoi d'accord